gis nga nii mbalit mi nag a ah, lii nag mel na ni ratu bi la ak peel bi ak jumtukaay yi nga xam ne nii moom la ñuy tonnee mbalit nii la ko premier Ousmane Sonko defee bu ñu fàttali ko itam ca caaro yi ca wee ñu génn itam noonu la ko premier ministre euh, le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye defee woon yor fourchette am nga xam ni ku xam mboob ku xam itam am ñax mu ñuy jël itam di ko ton ni mbaa itam gerte goo xam ne itam maa am ngooñ mu ñuy jël la di nga xam fourchette yooyu nañu mën a liggéey keroog bi ko njiitu réew mi euh, jàppee itam euh, di ci def lu ni mel xel yi dem nañ ca tool ya tey jii nag xel yi dem nañ ci li nga xam ne noonu la ko premier ministre defee jël ak peelam ci li nga xam ne ni moom moo doon wàllu woowu ngir liggéey liggéey bu ni mel Eh, wolof doo ko tënk ci tubaab eh, ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam di am mbégte bu rëy teew fii ànd fekk eh, monsieur le ministre de l' assainissement docteur Cheikh Tidiane ak kilifa yi ñu fi fekk ñu dalal ñu monsieur le gouverneur monsieur le préfet ak mboolem seen autorités yi nga xam ne fekk nañ leen fii euh, tey ñu ngi fii ci cadre euh, ñaareelu journée bi nga xam ne mooy programme bi ñu lancé muy programme mu setal sama réew di programme boo xam ne son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Faye da ko bindoon ci programme am benn ci fànn yi ëpp solo ci programme am euh, moo tax bokk na ci lu ñu njëkk a lancé bi ñu defee ay semaine rek lañ ko lancé tey jii moom ci boppam son excellence le président Bassirou Diomaye Faye moo fi waroon teew mu waroon doon première sortie euh, bu ñu bu muy def ci région yi ci cadre programme bi waaye yàlla dafa def bésu tey bi méngoog Euh, sommet bi war a am CEDEAO fële Abuja ba tax fii may wax ak yoon yi ni tembe defe naa yegg na Abuja ndax tey ci suba la dem loola tax mu ni ma pour ma ñëw teewal ko fi ma ñëw fi nag ak mbégte bu rëy rëy rëy ndax man ku ma xam rek xam sama cofeel ci Ndar euh, di njël jëkkee rek remercier population Ndar ndax euh, maa ngi fàttaliku lu soriwul dara dara dara dara ci campagne bi man maa fi ñëwoon campagne ci turu candidat Bassirou Diomaye Faye waaye defe naa liñ fi gis ci bés boobu ñëpp jàppoon nañ ni balaa ñuy jóge ndar pont bi boo moytul dina nërmelu tellement population ndar dañoo génn commencé ko guddi ba ëllëg sa ci fajar midi kon loolu mësul am ci campagne électorale ñu koy gërëmee waa ndar bu baax a baax waaye di wax ni du yem ci gërëm parce que gor gor lay doon te ba askan jiyee ni mu amee ndar nag la amee fépp ci senegal lenn rek nga mën a def mooy li taxoon ñu am yaakaar ci yow nga xar ci sa tànku tubéy ba ñu gis ci ay résultats lii nag dafay dugg ci cadre boobu rek parce que dafa am lu ñuy sàggane mais mu am solo trop mooy li tubaab di wax cadre de bi euh, ci wolof mooy euh, fa ngay dund dëkkuwaay dëkkuwaay ak li ko wër loolu amul la ëpp solo ci nit nit mun na génn solu ba mel ni fu mu génn ñu ne ko taaru nga li nga sol rafet na waaye bu dee fi mu jóge ku ko fa fekk xeeb ko ci ñàkk set walla ñàkk toppatoo loolu dootul am solo moo tax dëkkuwaay dafa am solo ñu war cee bàyyi xel ñun ñëpp nag parce que dëkkuwaay bu ñu defar ba mu mel ni mu war a mel premier avantage bi mooy dina tax ñu weg la ku la fekk si respecté la ñaareel avantage bi mooy dina fekk walla dina dàq jàngoro yu bëree bëri bëri parce que xam ngeen ni jàngoro yu bëree bëri bëri bëri ñàkk cet ci dëkkuwaay moo koy andi ba nay jàngoro yoo xam ne foo ko dégg rek xamal ni li ko andi euh, dëkkuwaay bu bon bokk na ci rawatina nag ci mag ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy xaw a néew di doole ak euh, tuut tànk yi moo tax ku bëgg a defar réew dangay njëkk ci li ñuy wax euh, ressources humaines nit ñi nit ñooñu nag ñaar moo leen moo mooy tax ñu jëriñ seen réew mooy ñu fexe ba former leen xel mi sell ku nekk am fenn foo xam ne am nga fa xam-xam boo mën a jëriñee réew mi waaye ñaar ñaar bi mooy yaram yi aussi wér ñaar yooyu boo ko boolee di nga am des ressources humaines de qualité loolu tax président la république jox bés bi cër ñu xam ni la ñu bëgg ci Sénégalais yi mooy ñu ñu ñu ñu ñu saxal ko ndax problème bi ñu am yépp mooy léeg-léeg mën nañoo démarrer waaye bu ñu demee tuuti rek mu commencé di wàññeeku di wàññeeku di ba mbir mi jaaree noonu. defe naa concept set set setal yàgg na fi ñun bi ñu nekk gone ci régime socialiste ñu njëkkoon lancé set setal ba biñ ko anglicisé tuddee ko cleaning day donc du lu bees waaye li war a bees nag. mooy taxawaay bi ñu ci war a am ñun ñëpp xam ni du mbirum président de la république defaluñu ko président de république parce que président de la république dëkkul goxu dëkkul goxu mbàcc dëkkul kolobaan dëkkul tilen dëkkul fii ak fii ak fii kon suñu defaree koñ yi ñun ñi fa dëkk ñi fa dëkk ñoom ñoo ci njëkk a profité balaa muy doon président de la république kon ñu fexe ba loolu ñu taxawal ko ñu saxal ko parce que ci liggéey réew am na loo xam ne mbirum nguur la mbirum état la waaye ci beneen pàcc bi am na loo xam ne mbirum population yi la ñoom ñoo mun a lënkaloo joxante loxo jàpp ci ñu defar réew mi kon looloo tax président la république yebaloon ma fii ma ànd ak ministre bi nga xam ne moo fi mu toll nii moom mooy jëwriñ buy toppatoo yu ni mel pour ñu ñëw euh, jëmmal jour journée bi fii ci Ndar muy première région boo xam ne président la république déplacé wu na ci ndax man mi ma yebal man mii moom laa fi toogal te loolu day wone cër bi ñu jox ndar ak yéene gi ñu am ci ndar problème ndar nag xam nañ ko yàgg nañ koo wax ba may nekk assemblée nationale bind naa ci ay question écrite laaj ko gouvernement bi yàgg naa ñëw ndar fii def fi conférence wax ci problème ndar donc du lu ñu xamut daanaka soxlawuñu sax ñu jox ñu fii cahier de doléance xam nañu problème ndar bu baax a baax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 loolu nag bu demee ba dañ rek musiba dina am ndax àdduna day gën a tàng ndax li ñuy wax serre couche de serre bi moom mooy tax ba naaj bi buy egsi ci ñun day doolem day wàññeeku bu demee nag ba dañ fi naaj bi day gën a tàng bu ko defee boo demee fi ñuy wax pôle nord nga xam ne ay glace la woon glace yooyu day commencé seey yokk ci géej gi géej gi itam jël volume ñëw dugg ci suuf si looloo tax ñëpp ñi nga xam ne pays côtier lañu tey am nañu problème boobu waaye rawatina nag Afrique ndax seetlu nañ ni Afrique moo gën a néew li muy polluer waaye moom moo gën a subir li ñuy les effets du réchauffement climatique fi ñu toll nii firnde na ko ndax wax nañ ni géej gi at wu ne dina avancer lu mat cinq à six mètres donte dafa mel ni ci fan yi mu ngi mel ni dafa xaw reculer tuuti mais at wu ne dina avancé lu mat cinq wala six mètres bëri na fii ay kër yoo xam ne defe naa ñëw naa fi juróomi at ci gannaaw wala lu ko ëpp ñëwoon visité fii yëpp ay kër yu bëri yoo xam ne jëlee woon na ñu fi dëkk ñu fi dëkk parce que ndox mi dem na ba jël kër yi yóbbu leen fële booru euh, balaa nga yegg ngalel xaar yàlla defe naa fa lañ leen defaloon ay tente noonu la amee feneen ak feneen du Ndar rek de côte bi yëpp la boo demee ba Kafountine fële ci Casamance di nga ko fa fekk loolu di problème boo xam ne problème bu laaj ay matuwaay la bëri na ay programme yoo xam ne lancé woon nañ ko fi euh, lim naa ci démb rek lu mat juróom benn programme yoo xam ne ñeenti banque mondiale moo ko financé am na ci boo xam ne union européenne la am na ci boo xam ne AFD la jox nañu ndigal ministre bi nga xam ne mooy saytu lu jëm ci environnement pour ñu defal ñu benn évaluation programme yooyu lan lañ ci def ci ay milliards ban résultat lañ ci am fan lañ ci toll lan mooy gàllankoor yi loolu baax na ñu def ko balaa ñuy dérouler programme yu bees parce que léeg-léeg problème bi ñu am Sénégal mooy dañuy jàll ci programme dem ci beneen te du ñu évaluer li ñu defoon ak fan la mbir yi dugg ak lan moo lan moo ci doxut loolu di mbir mu am solo waaye li wóor ba wér mooy nu ñuy def ba freiner avancée de la mer loolu yitte gu rëy la ci suñu gouvernement te noonu lañ ko fas yéene wéyalee doore ci li fi li ñu fi jot a def waaye yokk ko ful ko ba ci suñu 700 kilomètres de côte yi ñu mën ci am ay résultats fii ñu taxaw ni ñaareel problème bi mooy bël bi bël bi ñëpp xam nañ ko li ko andi woon mooy 2003 bi taw bi xawee am doole trop euh, ñi fi newoon ci kilifa ci jamono jooju newoon ñu dem ba ne bu ñu moytuwul ndar ci boppam dina am inondation yoo xam ne dina doy waar. te kër yu bëri dina nekk ci ndox mi ci la kilifa yi fi newoon joxe woon ndigal dinañu ubbi benn brèche bu ndaw ci géej gi pour ndox mi dem muy woon solution bu baax ci jamono jooju ndax fexewoon na ba inondation yi amul biir Ndar waaye malheureusement conséquences yi mu jur après brèche bi nga xam ne quelques centimètres la woon tey defe naa ëpp na six kilomètres ba amoon impact dëkk yu bëri jël na ko jëloon na ko ku mel na ay dun baaba jéy ak yeneen waaye defe naa am na lu ci nit ñi jot a def ba tey ensemblement bi ñu def ak yu demee noonu defe naa village boobu dellu si na waaye bël bi dafa di problème bu xaw a jafe ndax day déplacé wu day déplacé wu vers le sud euh, te démb gouverneur mi ngi ma naan defe naa dans vingt cinq ans suma jumut la war a dellu ci place am bi mu normal donc at wu ne wala ñaari at yu ne dina am benn village boo xam ne Euh, dina am problème buy jóge ci bël bi fi mu toll nii suma jumul juumul booru gàndon la war a doon gànjool bokk safur la booru gànjool kon loolu it lañ ci mën a def rek mooy anticiper ci ensablement yi ñu demee noonu mais c'est un phénomène naturel boo xam ne dina réglewul boppam lañ ci war a def ci accompagner aussi les populations bu soobee yàlla dinañ ko def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 sur la base des licences de pêche dem prélever quota yi nga xam ne autorisé nañ leen ko ñu boole ci nag matuwaay yi nga xam ne ñu ngi koy jël ci accord de pêche yi ndax loolu dañ ko yàgg wax démb ba ñuy doon opposition te lu ñu mu sax en tant qu'opposant rek bu soobee yàlla dinañ ko def en tant que euh, bu ñu egsee ci pouvoir exécution programme nag dañ koy dérouler étape par étape waaye gis ngeen premier acte yi ñu posé ci li jëm ci accord de pêche yi fa ñu bëgg a jëm daal gëm naa ni bato dootul jóge bitim réew yor filet yu ko neex mën a buub suñu géej gi yëpp te du débarquer fii biir Sénégal yóbbu géej gi la mu soxlawul mu sànni ko ci géej gi loolu moom dina jeex ci Sénégal te li ñu waxoon ni dina am benn benn zone boo xam ne bateau Sénégal kese moo fay dem nappi loolu it dinañ ci jublu ñu ngi ci ñu ngi ciy liggéey déjà te defe naa accord de pêche yooyu léegi mu jeex ñu war dugg ci phase renégociation te boobaa di ngeen xam ni fal ngeen ñu am fulla ñu bëgg Sénégal ñu jiital intérêt Sénégal ci keneen ku dul sénégalais kon lii lu ñu bëggoon a lancer la rek pour ubbi journée bi di féliciter waa Ndar yëpp ci mobilisation bi euh, di leen wax nag du mobilisation parce que premier ministre mi ngi ñëw. dafa war a doon mobilisation ci journée bi yëpp nag rawatina ndaw ñi ñu setal ndar ba mu set wicc waaye setal baax na trop waaye bañ a tilimal moo gën fuuf loolu it ci suñu jikko lañ ko war a dugal di koy mooy ñeneen ñi waruñ ñoo gën suñu bopp ñun sama benn xarit boo xam ne ambassadeur la woon Japon yàgg fa mu ne ma japonais yi ku ciy doxantoog xajam ngoon sax da yor benn mbuus boo demee ba xaj bi bëgg a def ay soxlaam da ngay lal mbuus mi mu def ko ci nga takk soo doxee ba gis poubelle nga sànni fa soo gisul di nga dox ba sa kër dugal ko sa poubelle loolu mooy bëgg sa réew kon il faut ñu góor góorlu ñu nit ba yenn pratique yi nga xam ne mooy tilimal ku ñëw sànni sa palanteer wala nga bale sànni sa buntu morom wala soo lekkee sa banaana sànni ci yoon bi yooyu yëpp ñu ciy góorgóorlu parce que ñàkk a ñàkk ñàkk tilimal moo gën a moo gën fuuf war a nettoyer après kon loolu it message bu ñuy lancer te xam nañ ni waa Ndar kenn du leen ci jiitu ndax ku wax Ndar wax civilisation ku wax Ndar wax yiw tey dal en tout lool loolu la ñu loolu la ñu mandargalee Ndar kon gëm naa ni waa Ndar kenn du leen jiitu ci nouveau citoyen boobu ñu bëgg nga xam ne day am préoccupation